jàngaloon daal da ngay yéene wax Allahu akbar jàng fatiha ci jàng googu nag lu toll leeraloon na fatiha gi dana am bismillah wala du ko am li gën a lëng mooy mën na ko am mu ne tanbihatun li ay yeetara al awalu bu njëkk bi zahiru qawlil musannifi lu feeñ ci waxu taalifkat bi mu ne summa taqarawu topp nga jàng dafa wax ne boo kabaare pe na nga jàng mel ni li feeñ mooy wujubul xiraati war ala kulli musallin ci képp kuy juli bam ne da ngaa war a jàng kon dafa mel ni képp kuy julli rek war naa jàng walay noonu bal li fi nekk innama dana war moom jàngee alal imaam yi ci kenn wal ci imaam wal fas ak kenn kuy julli imaam moo war a jàng ak kenn kuy julli amma ma moom kooku jàngi imaam ya moo di jàngam qaala waana xalilun ne wa fatihatun farata la ki jàng fatiha bi harakati lisaanin ci yëngal làmmañ wa jàng moo xam ne xel maay jàng làmmañ ba yëngatuwut baaxut waaye làmmañ bi foo mu yëngatu jamono bi ngay jàng jàng faatiha ànd ak yëngal lamañ ba ala imaamin war na imaam wa din ak kenn kuy julli fay jibu dana war taallumuha jàng faatiha in am kana ba mën a nekk su fekkee mënut faatiha dafay war mu jàng ko bu amee ku ko jàngal wa illaa koo jàng ndax amut ku ko jàngal wala daal am na gant lu ko tee jàng faatiha itam mën a roy ku mën ku mënul fatiha xamul fum ko jàngee wala jamono bi koy jàng mokkalagut lañ koy sant mooy mu xool ku mën fatiha mu di ko jiite fay lam yum ki naa nem ñoom ñaar mënul roy kenn amut fu ko jàngee wala mënu koo jàng fal muxtaaru lañ tànn suqutuha mooy rotoog fatiha ku mënul jàng amul fu ko jàngee wàcc na ko wa istahabu waaye sopp nañ an yafsila mu teqale bayna takbiiri diggante kabbaari wa rukon ak rukon bum kabbaar rek rukon na kabbaar taxaw tuuti door rukon léegi bi ko wa amal maamuum waaye maamuum fa xiraatul imaami jàngi imaam yi xiraatun jàng la lahu ñeel ko maamuum moom jàngi imaam yi mooy jàngam bu imaam di jàng daal mu ngi mel bi jàng na li annahu ndax imaam daaminun aji garante la li qiraati yi ñeel jàngi maamu mi moo gàddu jàngi maamu mi maanaam maamu mooy kañ jiite laakin waaye nag uxtulifa wutee nañ hal tajibu manax dana war moom fatiha fi kulli rakaatin ci rakk bu nekk awil julli wala dafa war la ëpp ci julli wala boo boo ko jàngee ci benn rakk rek doy na xilaafun loolu ndax rakk bu nekk ci war a jàng fatiha wala fatiha boo ko jàngee la ëpp ci julli rek wàcc na la yeneen rakk yi mën naa ñàkk fatiha wala boo ko jàngee ci benn rakk doy na kooku am na wute li gën nag mooy nga jàng ko ci rakk bu nekk wa dalilu lay tegtal ala fardiyati ummil qur'ani ci farata ak fatiha xabaru saxiyaani mooy xadisu buxaari muslim daf ni fii jàngoon ne laa salaata def julli li man ñeel koo xam ne lam yaqra jàngut bi fatihatul kitab ci fatihatul kitab ku jàngut fatihatul kitab julleen baaxut noonu la yonent wax ñu ne ku ko jàng ci benn rakk kon wala ay rakk ah, baax na ndax yonent ku ko jàngut la wax kon boo ko jàngee si julli gi rek baax na ñu ne déere la stratégie mooy ku ko jàngut si rakk bu nekk baaxut wa xabaru ak xadis bu ne kullu salatin bépp julli laa yuqraw duñ jàng fiha ci moom bi umil qouran ci fatiha fay moom xidaajun aji wàññeeku la xidaajun aji wàññeeku la xidaajun aji wàññeeku la xaalahu wax na ko salaasan ñetti yoon yonent bi nee na julli gu amut fatiha dafay wàññeeku dafay wàññeeku dafay wàññeeku xidaajun nag mooy xayru tamaamin du mat wa hada li caamilun aji mat la aji yóbbaale la li salaatil fardi ñeen julli farata wa nafli ak naafila fala yaqumu du taxaw xeyrul fatiha te dudul fatiha maqaama taxawaayu fatiha fatiha daal dara mënu ko remplacer farata ak naafila yëpp dañ ko war a jàng li gën it mooy nga jàng ko ci rakk bu nekk loolu mooy li gën a leer fiq moom ñaare loo gëstu rek xam ko wax safaan ba waaye daal def li gën a wóor kooku luñ santaane rek ci wàllu jaamu yàlla asaani ñaareel ba xukumul jahri mooy atte biral fii maa yujharu ci la ñuy biral fii ci moom wa xukumu sirri ak atte bi fii maa yusiru ci dana yalu fii ci moom a salawaatil xam si julli juróom yi ak sunniya mooy këjug sunna biral ak yalu sunna la waaye ci jullik farata amma julli naafila yi nga wax ko ci kaw wala nga wax ko nànk dañ koo sop julli naafila nag bu dee naafila guddi la dañ koy wax ca kaw waaye dañ ko sopp rek bu dee naafilaak bëccëg la nànk lañ koy wax waaye wax nànk ga lañ koo sopp naafila bëccëg nag bu amee xutba ni ki julli ga et dañ koy wax ca kaw kon julli bu dul farata mooy julli gu bokku ci julli juróom yi bu dee bëccëg nga koy def nànk nga koy wax bu dee gannaaw julli ga dañ fa santaane xutba julli ga ca kaw nga koy wax julli guddi yi nag moom ci kaw lañ koy wax yéen sentaane guddi nag amut bu ci am xutba ndax xutba ni ñu dañ koy defal te guddi julli guddi moom nit ñi dañ narawi tey naa fi rek yow mi bëgg tiyaaba gu yokk wata yaskuru dana tudd al musannifu taalifkat bi xaqiqata kullin minhuma dëgg-dëgg benn bu nekk ci ñoom ñaar fi axiri hadal baabi ci mujjëg bi la bunt dana jàngale lan mooy biral ak lan moo di yalu wa ida qara bu jàngee fi mahalli sirri ci barabu yalu jahran ci biral aw fi mahalli jahri wala ci barabu biral sirran ci yalu fa innoo nag moom yasjudu dana sujud fi ula ci bu njëkk bi baada salaamin gannaaw bu mu sëlmaree li annahu ndax moom ata andi na bi ziyaadatin ci yokku wa fi taani ci bu ñaareel bi qablahu qabla salaam lal sujud li àndoon ndax moom ataa andi na bi naqsin ci wàññi ku wàññi xabla salaam lay sujjóot ku yokk ba'da salaam lay su fekkee dafa waroon a wax nànk mu wax ca kaw kooku yokk na baatam kon dafay sujjóot ba'da a wax ci kaw mu wax nànk wàññi na baatam kon day sujjóot xabla salaam wa hada sujjóot bii nag xaytu lam yatazakkar mooy bu fàttalikuwut al muxaalafatu wutee gi lahu ñeel ko illa baada wadi yedayhi lu may gannaaw mu tegee loxo yi ala ba yi si ñaari omi su fekkee da waroon a wax ci kaw nga wax nank baru koo nga door koo fàttaliku da ngay continuer boo pare nga suur qabla salaam ndax wàññi nga sa baat boo waroon a wax nank nga wax ca kaw baru nga door koo fàttaliku da ngay boo pare nga suur baada salaam ndax yokk nga sa baat amma su fekkee da ngaa waroon wax ci kaw nga wax nànk wala nga waroon wax nànk nga wax ci kaw avant ngay rukkoo nga fàttaliku ko moom lay wax ne wa illaa nem rukkoo gut ah dana baamu alqiraata jàng ya ala sunaniha ndax sunna la wala ci kaw nekk gim nekk sunna waal yasjudu mën a xam dana sujjóot baada salaami gannaaw am na ñaari wax wa ñaari wax ji kullu lépp ay su mooy bu nekkee xay sukaana bu nekkee maa waqaar la tàbbi na fii moom almuxaalafatu wutee bi al ci al almuxaalafatu kal fatiha di nekk comme fatiha lépp aw julliha wala ëpp ci ga wa kaana tam nekk asalaatu julli ga faridatan di julli farata wa illaa bu benn ci manqué fala sujuda det sujud di ko war maanaam dafa waroon a wax ci kaw mu wax nànk wala mu waroon wax nànk mu wax ca kaw taru ko gut mu fàttaliku ko jàppal ne bu dee loolu faatee woon wala boo te tamit julli farata la am na ñu ne dafay baamuwaat faatee ga teg sa saar jàng ko na ko war a jànge mu sujjóot ba'da salaam ñu ne du sujjóot si gàttal timis la doon julli mu waroon koo wax ca kaw mu wax faatee gi nànk avant muy rukkoo mu fàttaliku ko na jàngaat faatee ca kaw teg sa saar continuer julleem bu paree mu sujjóot ba'da salaam bu dee eh, ndax timis farata la te loolu faatee la ñu ne du sujjóot dégg nga bu fekkee nag eh, bu doon tusubaar si misaal it moo doon ko wax ndànk mu wax faatee ga ca kaw avant muy rukkoo mu fàttali ko dafay jàngat faatee gi ndànk continuer julleem ñu bu paree dana sujjóot ba'da salaam ñu ne du ko sujjóot ñaari wax yooyu la waaye bu dee julli gi julli naafila la mu waroon a wax faatee gi nànk ndax julli bëccëg la wala mu war koo wax ci kaw ndax julli guddi la defut ko noonu avant muy rukkoo mu fàttali ko na baa mu fàttee gi ak saar wi continué julleem te du sujjóot dara ndax julli googu du farat kon bu dee naafila moom bu baa mu aatee faatee du sujjóot dara dégg nga bu doon julli farata la wala muy naafila saar ba jàng na ko ni mu ko war a jàngee wax na ko ci kaw te noonu la ko war a defee wala wax na ko nànk te noonu la ko war a defee faatiha jàng na ko ni mu ko war a jàngee ba mu ñëwee ca saar wa mu war koo wax ca kaw mu wax ko nànk ni ki julli timis la mu war a jàng saar wa ca kaw mu jàng ko nànk avant muy ko mu fàttaliku ko saar wa rek lay baamuwaat du baamuwaat faatiha ga te du sujjóot dara kon ku bàyyi yelu wala biral avant muy rukkoo mu fàttaliku ko bu dee saar kese la saar ba rek lay baamu du sujjóot dara bu dee julli ga du farata moo xam saar wa rek la wala faate la bu dee faatee ak saar wala day baamu faatee ak saar te du sujjóot dara jàng ko nañ ko war jàngee bu dee saar wa rek mu baamuwaat saar wa rek te du sujjóot dara bu dee julli gi julli naafila la amaa bu fekkee julli gi nag julli farata la te wala biral faatiha la mm, dafay su paree ñu ne kon ku bàyyeelu wala biral mu fàttali ko dafay baamu jàngee bu dee faatiha bokk na ci lam baamuwaat mm, dégg nga mm, bu tëju liggéey di farata loolu du sujjóot wa mahalluhu barabu sujjóot ayaan ba tey idaa waqaa mooy bu tàbbee minu ci moom ala jihati sahwi ci wàll ak jamaj kay sujjóot xabla salaam wala baada salaam mooy ku juum waaye ku tey ñi ne julli ga yàqu na ndax ku tey bàyyi sunna julleem dafa yàqu ñu ne déedéet bàyyi sunna moom même boo ko teyee du yàqu julli waaye da ngay jégalu yàlla rek dégg nga ndax ñàkkee teggin nga sa borom waaye doo ko sujjóotal moom moo tax ne wa ammaa law jaxara waaye bu biraloon biral mooy wax ca kaw fi mahalli sirri ci bala bu yalu yalu mooy wax nànk aw asarra wala mu yalu fi mahalli jahri ci barabu biral am dan ci tey fa qiila waxeef nañ ne yastafiru day jéggalu allah yàlla wala tabtulu waaye du yàqu salaatuhu julleem wa qiila waxeef nañ ne tabtulu julli gi dana yàqu kon ku tey bàyyi sunna ñii ne julli gi dafay yàqu ñii ne du yàqu waaye du sujjóot dara qaala waana xalilun waal tabtulu manax dana yàqu moom julli bi taamudi tarki sunnatin ci tey bàyyi sunna aw awlaa wala awlaa la wala du yàqu wala sujooda te déet benn sujood di ci war xilaafun kooku am na wutee ku ter tay bàyyi sunna julli ga yàqu na am yàquut am na wutee waaye sujood moom nangu nañ ne du ko def ndax moom moo tay bàyyi te sujood bi pour ku jum la asaalisu ñetteelu yeete ba law xaraa bu jàngoon fi subhi ci suba aw naxwiha wala yu mel ni suba mimma ci li nga xam ne yu sannu danañ sunnaal fii ci moom aljahru biral sirran ci yelu wala mi tazakar te fàttalikuwut ko illa baada wadi yéde yi lu may gannaawum tegee loxoom alaa rukbatee ci bëti omi suba la doon jàng wala timis wala gaye moom la doon julli di jàng yooyu da nga cee war a wax ci kaw moom mu jàng ko nànk xaar ba teg loxoom ci bëti omi ci omi maanaam baru koo mu doo ko fàttaliku kooku dafay continuer bu paree mu sujjóot xabla salaam loolu lañ waxoon moo tax waxul naa waxoon nañ ne laa yar joon du dellu bàyyi nga biral wala yalu baru ko continuer bul dellu falaw xaalifa bu wutewoon nag lañ ko digal raja mu delluwaat taxaw li ajli jahri ngir andi biral ga fa xiila waxeef nañ ne tabtul day yàqu salaatoo julleem lu tax li rujon yi ngir dellu gi mu dellu min fardin bàyyi farata ila sunnatin jëm ci sunna gis nga takk-takk yi mooy tax suñ la laajitee lu mel nii te du masala mii nga mën koo tontu mooy ku bàyyi sunna di defari farata dafa am ñu ne julli ga yàqu na am ñu ne yàqu te mooy li gën a feeñ kon saa la laajee diw daf doon def dara dafa fàtte woon dara ci julleem te loolu maanaam ku bàyyi farata di defari sunna laa bëgg wax dégg nga maanaam jum ku bàyyi farata defari sunna am na ñu ne yàqu na ñu ne lii takk-takk la léegi mën nga si am bunt bu yaatu mooy ñu laaj la beneen masala ne la waaw diw de dafa bàyyi nangam ci julli te loolu sunna la hmm? mu dem ci cër boo xam ne farata la mu bàyyi farata ga dem di defaraat sunna woowu bu la ne ko ju am doon ñaari wax ñi ne yàqu la ñu ne yàqu pourtant bokkut ak jëmmi masala mi mais masala mi ci nga jëlee takk-takk bi mooy usul yi nga xam ne borom xam-xam yi dañ ciy ay xawaayit yu yaatu yaatu hmm? takk-takk yi mooy tax sa fiq mën a yaatu bañ a jàpp ci masala yi rek ngay jàpp ci takk-takk yi nga yi ngay jàng ci biir téere yi ak jàng ci kutubul usul yi dangaa bàyyi farata ñu defari sunna ñu ne julli gi yàqu na fa xiila wax ne tabtul dana yàqu salaatu julleem liru joxe ngi dellu gi mu dellu min fardin bàyyi farata ilaa sunnatin jëm jëm defari sunna wa am na ñu ne laa tabtulu julli gi du yàqu wowata loolu ak zaahiru mooy du dangaa bàyyi beneen wala yelu ba rukon rukon farata nga gi nag dem andi yàlla nga war a biral ko ñu ne julli gi yàqu na ndax da ngaa bàyyi farat defar sunna ñu ne yàquut te yàquut nag moo gën a feeñ ndax su boobaa nag da nga sujjóot waaw bu dee baa nga faate ga te julli gi farata da nga sujjóot bu dul loolu doo sujjóot comme niñ ko waxee am ñu ne boobaa maan faate ga doo sujjóot kama fi taariki juróo si comme nim ñëwee woon ci ku bàyyi toog baa si na teen yi gannaaw ñaari rakka mine rubaayati ci jullit ñeenti rakka yarjoo muy dellu loxo jëm ca togga baada istiqlaalihi gannaaw bu mu gannaaw bu mu taxaw bu yem wala baada istiqlaalihi gannaaw bu mu yemoo danga waroon a taaya ci ñaari rakk nga bokk fa jug taxaw taxaw nga jub kon yaa ngi ca farata nga delluwaat toog nag ngir andi taaya ba su boobaa baada salaam ngay sujjóot ndax dangaa yokk waaye wàññi woo def nga taaya ba waaye boobaa dafa am ñu ne julli gi yàqu na ndax dangaa bàyyi farata di defari sunna ñii ne julli ga yàquut te loolu mooy di feeñ almusaar moom lañ juñu ilay jëm si moom bi xawli xalil ci waxu xalil wala tabtul julli gu yàqu in rajan bu delloo di taaya wala wistaqala dina taxaw na taxawaay bu jub kon takk-takk ba moo ku bàyyi farata di defari sunna julli ga yàqu na ñii ne déedéet ku bàyyi farata dafay sunna julli ga yàquut kon loolu lay la jàngale ci sarxa boobu mu ne nag ña ca yax ba mu ne fayda ñu tudd sax mu ne fayda boo waxee yaakaar eh, naa ñu jàngoon fen kunt boo nekkee fi subi suba xaat na nga jàng jaaran ci biir bi mul quran ci fatiha loolu lañ doon sara laa tastaftu bul commencé bismillahi rahmaani rahim waaye commencé ko moo gën a ci kim nañ ko leer loon ci sara ba fi mu alquran ci Fatiha wala fi sóoratu jaageen saar alji bi nga xam ne baada mu ngi ci gannaaw Fatiha saar wala mën nga see ñàkk a wax bisimilah fa daa xultu boo waxee wala daalina wala daalin waaw foofu lañ toll fa qul waxal amina amin da fataa miim nga boo saxwee nga ne amin sukkoon ko waaye miim nga si cosaan dafa fataa am na ñu ne dafa dàmm danañ ci ñëw in kunta boo nekkee wax daka yow dong aw xalfa imaamin wala nga nekk ci gannaaw imaam bu dee yow wala yaa ngi ci gannaaw imaam bu imaam wala daalin waxal amin bu dee yow kese la boo waxee wala daalin nga wax amin wa tux fiha ko nëbbu amin gi nànk lañ bëgg nga wax ko ndax ñaan la te ñaan li ci gën mooy nga yalu ko wala yaquluha du wax amin al imaamu imaam fii maa jaxara ca la biral na fii ci moom wa yaquluha dana ko wax fii ma asarra ca la yalu na fii ci moom imaam buy jàng nànk bu waxee wala doolin dana wax amin amma buy jàng ca kaw bu waxee wala doolin du wax amin kon ñett am kenn kuy julli moo xam ca kaw lay jàng kenn kuy julli moo xam ci kaw lay jàng wala nànk lay jàng su waxee wala daalin dana wax amin maamoom moo xam imaamam ci kaw lay jàng wala imaam bi nank lay jàng maamoom bi daal bu déggee wala daalin dana wax amin bu ko déggut du wax amin imaam buy jàng nank mun naa dem ba ca wala daalin mu wax baat boobu ci kaw ngir déggloo maamoom yi su waa maamoom yi dañoo war a wax amin waaye bu waxee wala daalin nag nank maamoom yi duñu wax amin kon maamoom daal duñ xool dégg nañ la commencement Fatiha wala dégguñ ko wala daalina ga daal dégg nañ ko mu dégg nañ ko ñu ne amin dégguñ ko ñu noppi maa moom loolay takk-takk bi si waxam amin imaam nag buy jàng nank dana wax amin buy jàng ca kaw du wax amin nga ne ko loolu ñëpp ci dëppoo mu ne déedéet wa fi qawlihi nekk na ci wax ak imaam iyaa amin fil jahri ci jullit biral ixtilaafun wutee borom xam-xam yi wutee nañ ndax imaam buy wax ci kaw mën naa wax aminam ndéet ñii ne mën na koo wax ñii ne mënul koo wax waaye mënul koo wax gi nag mooy wax juñ sukkandikoo kon imaam buy wax ci kaw du wax amin mooy lañ sukkandikoo waaye teewul am na ñu ne mën naa wax amin loolu lay saraxane fa ida qarata boo jàngee umul quraan fatiha qulta nga wax wala daalin fa qul waxal ala jihati istihbaabi ci anam sopp amina amin nag am na jàngin yu wutee bil mat di mën ngaa xëcc alif gi aa wa taxfiifin miimi nga oyofal miim gi bu ko shadda nga ne amina al ala wazni faila mu nekk ci tegginu faila loolu ñooñu sarfu ñoo ko gën a mën a xam wa bil xasri wala nga gàttal miim nga ah maa tax fiifin miimi wa bil xasri nga gàttal alif ga maa tax fiifin miimi ànd ak oyofal miim ga bu baalaa wasni faila lay doon faila amina man ngaa wax amina man ngaa wax amina <clears throat> ñaari anam googu wa bil maddi wala nga xëcc alif ga ma tasdiidil miimi ànd ak sadda miim ga wan nuunu te fekk nuun ga maftuuxatan dañ koo fata muy amiina amiina amiina amiina maanaam nga xëcc aagi sadda miim gi fataha nun ki amina amina boobu dafa naq di gan nag wabil maddi nga xëcc alif gi ma tasdidin miim mi ànd ak shadda miim ga wa nuun waaye nuun gi nag maftuhatan mbir mu yuñ fataa lay doon nuun gi day fataa alal luxaat yi ci kaw lang yi asalaasa yi ñett ñetti lang ci am ñetti langue yooyu ci am wal mashhur la gën a siiw luxatul maddi mooy làng ak madde ga wa sunnatul maddi ak yoonu madd ba maa tax fii ak oyofal amina moo gën a siw amina nga xëcc alif ga oyofal miim ga bañ koo sadda kooko gën a siiw waala hadi luxati boo sukkandikoo ci luxa bi faila lay tëggin ba nekk فقيل وقفنا إن إنه هناك آمين عجمي لان عجم لا معرب بن دوغل سلاك عرب نين لولو عجم لا ندوغل كتي عرب لأنه نغلي أنبام ليس نكون في كلام العربي تي وخي عرب فاعل نين فاعل أموت كن تجن فاعل أموت تي عرب كن آمين دو عرب نبرون نعم، عرب دون يرى بين تجن ci arab yi doon tëggee baat yi tëggi nag yooyu nag matière ab sarfu la waqila wax na ne waxeef nañ ne amina arabiyun këju arab la ñu ne arab la kay mabniyun luñ binaa laalal fati ci fata ismu fi'li amri la turu fi'lu amru la maanaam maanaa fi'lu la yore waaye nag atteeb ismu la yore ndax yaaw mu xaatu ba du ca dugg loolu ñuy jàng naa ñoo ko xam ismu fi'l li talabil ijaabati dafay sàkku nangu ñaan maanaaw maanaaw mooy istajib nangul wasma déglul wa am min naa yàlla nga ñu wóoluloo xaybata duwaa ina pertaak suñu ñaan ñaan gu sooy maanaam ñu ñaan mu sooy yàlla nga ñu wóoluloo ci loolu may ñu sécurité na ñun suñu ñaan du sooy loolu mooy maana amina amina mooy yàlla yàlla nga nangu suñu ñaan kon maanaa fen amru la waqiila wax nañ ne innahu naka moom ismun tur la arabiyun bay këjug arab min asmaa ci tur yàlla yi taala kawe na su fa takun day nekk nuunuhu nuunam ga mabniyatan diruñ binaal ala dammi ci damm li annoo ndax moom maarifatun maarifa la munaadaa bu ñu xoo wa taqdiru nattale bi mooy yaa amiinu moo doon cosaan dañ ko sukkoon ngir taxaw gi ci taxaw yow amiin istajib nangul doa ana suñ ñaan kon amin am na ñu ne ismu fi'l amru looloo gën a wér am ñu ne turu la boo ko jàppee turu yàlla aminu ngay wax ndax munaada bu ñu xoola te munaada boo xam ne ni alam la dañ koy binaal ci damm yaa aminu la comme ni nga waxee yaa muhammadu munaada nag euh, matière ab naxu la jàngkat nax yi ñoo ko ñoo ci mën a wax dégg nga yaa aminu su koy daam waaye boo ko defu tur yàlla rek amina ngay wax amina mu nekk ismu fi'l amru wala nga ne mu nekk ismu fi'l amru ba tey wala nga ne amina mu nekk ismu fi'l amru yépp nun nga dafay fataa ba mu des boo ko jàppee tur yàlla nun nga dafay dàmm ndax mu naa daala wa taq dégg nga wal mu'tamad lañ sukkandikoo annahu naka amin ismu fi'lu amrin turu fi'lu amr la walay sa nekkul min asmaa yi di bokk ci turu yàlla yi taala kawe na mukk la anna al muxtaara ndax lañ tànn mooy anna asmaa wu nekk turu yàlla yi taala kawe na tawqifiyatun këjug taxaw la nañ ko jàngee ci yonantu rek noonu lañ koy waxe tour yàlla yi tawqifiya la tawqifiya mooy lan mooy nañ ko gisee foofu lañ mën a xem kenn du wutalal yàlla tur wu la neex waaye yonentu moo lay wax ne ne lii turu yàlla la nga jàng nga xam ne turu yàlla la fii bokk na ci musiba yi nga xam ne daañu ko nangul yenn borom xam-xam yi ñoo ko dugal ci diine parce que léeg-léeg yu bëri ay borom xam-xam rek yu yuñ nangul ñu dem ba seen wax mel ni wax yonentu muy indi yenn yi ci diine ñu bëri jàpp ci sànkute am ci te fekk aslan ci cosaan demeewul noonu yonent yi jàngalewul lool bokk na ci musiba yooyu xam naa ne ñu bëri war nañ cee taarif téere waxuma nag bëgg jam borom xam-xam yi rek tax ngay taarif di di sànni xeer borom xam-xam yi déedéet waaye am yoo xam ne ni wax dëgg yàlla te la mu jaaree ci borom xam-xam yi nga dabaatal ko loolu lool liggéey bu baax la waaye jubloo si gotti leen jubloo ci wàññi seen xàq gannaaw ba nga leen màggalee jox leen seen cër nga xoolaat yi nga xam ne yii moom dëgg-dëgg lu ñu war a xoolaat la ngeen tegaat ko ci taagul bi loolu Cheikh Tidiane ku daan def bàyyi rek ko daan def wala yàlla yu bëri dañ ko daan def bii ci la bokk bokk na ci ni borom xam-xam bëgg a loo nit ñi xadis dem ci sarxa fatul baari wala nangam nangam ñu ko noonu ko saraayewut boo ko firee daal nu ko loolu ñoom ñoo ko wax waaye yonentu waxul loolu yonentu saxaaba yi daan dégg ci moom daf na leen balligu anni walaw aayatan fa rubba muballagin aw aamin saamiin même bu dee benn wax ngeen dégg ci man jottali leen ko bëri na koo xam ne déggul wax ji da ngeen ko koo jottali mu ëpp leen ci dégg yéen ñu dégg wax ci yéen a ko dégg dégg nopp ngeen jottali ko koo xam ne déggut ko dégg nopp mu ëpp leen ci dégg ab xel fahmu mooy dégg ab xel mën ngaa dégg man ngaa ëppale nit ki ci dégg nopp waaye moom mu ëpp la ci dégg ab xel yonentoo yonentoo wax lool kon yonentu reconnaître ne ku dul saxaaba wala ku fekkeewut ay waxam mën naa gën a dégg waxam saxaaba bi ko fekkee dégg bu fekkee na yonent bi ay waxam tënkuñu sax ci firim saxaaba wax dëgg yàlla tënku ñu ci firim keneen ku dul saxaaba kon loolu ci musiba yi nga xam ne ay borom xam-xam wax nañ ko yàlla yàlla fay leen yiw ba mu tasaaroo mel ni hadis dangaa war a dem diw firin la ko wala diw ak diw ci yooyu ci bokk di leen nag hadis nag foo nga am capacité firi ko door koo firi waaye képp kuy borom xam-xam rek dañuy nangu ab firéem ak dégg-déggam ci hadis bi ndem am nag capacité boobu xëy na loolu la ñu doon fàtt moo tax ñu tënk nañu sax ci yenn waxi borom xam-xam bokk na ci musiba yooyu gëm di gëm ne ku dee moom kenn mënu koo gisati ba weddi ci ay borom xam-xam yoo xam ne bu ñu waxoon lii war naa mën a nekk rek ñu nangu leen parce que léegi-léegi dangay gis ñaari borom xam-xam wute kii saxal lii ki dàq lële ñu respecté ñaar ñëpp ndax ñaari borom xam-xam lañ léegi bu ñaari borom xam-xam wutee ñenn ñi saxal ñenn ñi dàq. borom xam-xam ne kay saxal la ñu nangoo xam rawatina kay saxal bu fekkee moom dafa gis texte nit ñi gëm gi gëm ne ku dee kenn du ko gisati moo leen yóbbee ba ay borom xam-xam ne yonantu mën nañ koo gis ñu ne mën nañ koo gis ñooñ ne ñun sax gis nañ ko ñu weddi loolu mooy féeteeru dëgg yow koo xam ne bu waxoon ne yonantu war mën nañ koo gis rek teg ko ci taawilam war nañ koo mën a nangul gis-gis boobu ndax foofu la bokk na ci ñu mën a wax ci diine ñu nangul la ñu ñu sukkandiku ñu ne yonent war nañ ko mën a gis borom fawaaki dowaa ni ci la bokk danañ ko danañ ko jàng bañ ci tollee ay borom xam-xam yoo xam ne lu ñu wax war nga koo mën a nangu ñoom ne yonent war nañ koo gis nga wedd ñoom ñu ne xamuñ ci mën nañ koo gis ñun gis nañ ko kenn xamul leen ci fen nga wedd da ngaa fetterlu topp rek aada boo xam ne ni ay boromi xam-xam ñoo ko dugal ci diine waaye bokkut fañ ko teg mooy ku dee kenn mënu koo gis ku dee kenn mënu koo gis talan te yàlla rey Uzayr ci alquran téeméeri at lu teg dekkilaat ko dem na ba yax ya funux mu dekkilaat ko dégg nga mm, yaxu mbaamam yi sax funuxoon dégg nga yàlla dekkil ko mu delluwaat ci ay nitam di wax ak ñoom di kaf ak ñoom di dundaat ak ñoom ngeen ku dee yàlla mënu ko andi ci ay doomu aadama muy wax ñoom xam nga ne bu fekkee Uzayru mën na loolu kay yàlla mën na ko defal ku nekk yàlla mën naa jël ruuxu def ko ci ku dee mu ñëw di dundaat mën na ko def ci ku dee mu wax soxlaam demaat amil mi nga xam ne nii eh, suratul baqara mu ngi koy nettali dañ koo rey am nag rek la ko yonent yàlla Moussa dóor cërëb nag rek mu dekki wax ne diwoo ma rey deeaat dem doxi soxlaam kooku dee na waaye ba mu amee mission ci àdduna ñëw na rek la ko demaat ngeen ne ku dee du ñu war alaxira kanaa jàngu leen alam tara ila alladina xaraju min diyaarihim wa hum ulufun xadara al mawt fa qaala lahum allahu summa ay nit yu génnoon ngir ragal dee yàlla rey leen bañ dee mu dekkilaat leen yàlla dara tënku kon ku dee dem alaxira du ñëwaat àddina loolu de génne nañ ci moojisa wala karaama loolu nag mooy nassu bu tegu yàlla bu buñ demee déedéet duñ dellu si waat de waaye teewut moo ji sax mën naa dégg nga tax siisal texte boo xam ne am la texte boo xam ne kenn génnul sa moo tënkut moo ji sax kawteefu yàlla tënkut karaama yii ma la wax ci buntab karaama la xewee ak buntam moo sax kon gis-gisu ku dee du ñëwaat loolu njuumteey borom yi xam-xam la waaye du lu sax ci diine yooyu bëri na jumtu yooyu bëri na bokk na ci fay gi yàlla di fay yonentu rek moo la ko mën a xamal boo jaamoo yàlla fay ga mënoo koo xam lu ma yonentu xamal la ko ci njumtey borom xam-xam yi la bokk déedéet yàlla waxul jàng nañ ci hadis bu leer nañ dégg nga yàlla nettali ñu bi nettali nit ku doon ziyaare mbokkam te yàlla rek tax ba demee ba ca yoon wa malaaka ba dikkal ko foo jëm dëkk sàngam loo fay def damay ziyaare ji sama mbokk ndax dama fa am soxla mukk dama ko bëgg rek te yàlla tax di ko ziyaare ji mu xamal ko ne ko yàlla bëgg na la ni nga bëggee sa mbokk kon fay gi gi ko yàlla fay ci jëfam ba jërewul ko ci téere jërewul ko ci yonantu jërewul ko ci kenn ci péeb yàlla ba la ko jëlee yàlla yónni malaaka mu xamal ko ko ku la wax na la nag tiyaabaay jëf fekk faw nga jàng ko ci téere wala yonentu wax la ko waaye yàlla mën koo xamal wala yoom xamal ne dafa roy rek ay dégg-dégg boromi xam-xam ba far ñu jumloo ko ndax ida zalla aalamun aalimun zalla bi zallatihi aalamun benn borom xam-xam bu juumee mbooloo mu bëri juumaale ci ñoom waaye kooku de xam na tiyaabaay jëfam te jëreewul ko lu may ci péeb yàlla ba kon yàlla mën naa xamal waliyoom ne ko lii boo ko defee lii mooy fay ga mu wax ko nga naan ko fan la ko yonantu wax walla ban téere nga ko jëlee da ngaa xamul ne yàlla mën naa xamal waliyoom direct te loolu wattaqullah wa yaalimukumullah ëmbaale na ko ragal leen yàlla yàlla xamal leen yàlla ke mën na laa xamal jëf ji boo ko defee am ci fay fay sàngam bokk na ci ñu ne wali yi faw ci téere yi rek lañ mën a jëlee wala ci yonent yi walaay loolu njumtey borom xam-xam la yu tasaaroo tax na sax bañ weddi gu bari wali yi nëbbu lu bëri waaye wali yi am nañ ay bunt ki ruq yu ñuy jaar dem ci péeb yàlla ba di jël direct di indi moo tax bëri na ñaan yoo xam ne ni ci seen loxo la feeñee direct bëri na mbir yoo xam ne nii ci loxo la feeñee direct jaarewut feneen ñuy defi xar baax ni ko wëllu yi defee ànd ne yonent yi ni ko yonent yi defee ànd ak ne yonent yi ñoo leen gën a garaat loolu rek la waaye ñoom man ñoo jëlee ci péeb yàlla ba direct layoo mooy lan moo di alquran mariama yàlla dafa wax ne isqaalatil malaikatu yaa mariama mariama malaaka yi ñoo ñëw wax ak moom kooku la lañ ko xamal jëlewul ko ci Zakaria te Zakaria yonantu loon mu ngi woon dund ci jamono jooju jëlewul ko ci kenn direct la digganteem ak boromam amul intermédiaire إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين xoolal loolu yàlla wax na ko maqaam yow Mariam yàlla tànn na la laabal la gënal la ci jigéeni àdduna bi yëpp yàlla xamal na ko maqaamam te jaarul fenn bu wëli yu taxawee wax mayam ak maqaamaam ku ma bëgg nangam ku ma nangam nangam nga naan fu ko fuñ ko jàngat lu tax yonentu xamul koo nag te yaa gis Omar ibn Xataab mën a jaar ci mbedd mm, dégg nga te seytaane du du fa jaar yonentu di julli seytaane ñëw di xeex ak moom Omar am na lu yonentu amut wala yu taxaw wax nga naan lu tax yonentu amu koo nag kan moo leen jàngal ne ñu njëkk ña luñ amut ñu mujj ñi duñ ko am loolu ci njuumte yi yi nga xam ne sos nañ ko ci diine la bokk wala yu du jëlee ci yàlla directe ci njuumte yi la bokk waaye ñu njëkk ña luñ amut ñu mujj ñi duñ ko am loolu ci njumte yi la bokk loolu xéeféer yaa ko doon wax sax ñoom ne naan law kaana xeeran maa sabaqunaa bu doon xiw du ñu ci jiitu <laughs> fadlulaa yu tii ma ne yàlla wax waxu ne dana ko jox ñu njëkk ñi waxu ne dana ko jox ñu mujj ñi lislaam yi ci baax yëpp yu ci bëri yàlla ci mujj ñi la ko feeñal mazaahib bi saxaaba ñëw nañ ba dem xamuñ ko ñoo xam ne gisuñ saxaaba sax ñoo ko am Abu Hanifa rek moo gis saxaaba ci borom ngir yi nga xam ne ñoom lañ ñoom lañu jëfee seen ngir ci jamono ji ñooñu am nañ lu saxaaba yi amut yéen ngeen am liggéey ci xadis yonentu lu saxaaba yi amut ngeen bëgg a wax ne wëli beneen wëli bu ko yàlla mayee lu ñu njëkk ñi amul ngeen lu tax ñu njëkk ñi amuñ koon loolu ci njumte yi nga xam ne nii tasaaroo ci diine ji te du dëgg ci la bokk bokk na ci tur yàlla yi tawqiifiya la yonentu sallallahu alayhi wax na ci benn ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan ci nangam ak nangam ba ne ko maa ngi lay ñaan ci tur wi nga xam ne yaa ko xamal ku la neex ci sa jaami yaa jagleel ku la neex ci jaami xamal ko loolu yonentu wane ne yàlla mën naa tànn ku ko neex ci jaamam yi xamal ko ab tur ci tur yàlla yi te kat bu leen fàtte ne yonent yi yonent yàlla Muhammad sallallahu moo ci arab tur mën naa ñëw ci tur yàlla xamal ko wëliyu fekk tur yàlla wu Ibrahima xooyee yàlla ku doon woo ci yeneen làng ndax yonent yi dañoo amoon yeneen làng doon woo yàlla ci tur yooyu yàlla turam yi du jeex yonentu jàngal na ci hadis na yàlla mën naa xamal jagleel jaam bu ko neex ab tur ci turam yi wala mu xamal ko am malaaka ci malaaka yi yàlla xamal na ne malaaka man naa xamal doomu aadama boo xam ne waliyu la dajeeg moom wax ko tur wala wax ko dara dem loolu xam na kon ab waliyu mën naa xam tur yàlla boo gisut ci téere kon ne tur yàlla yi tawqiifiya dama ne muy bokk ci njuumte yi nga xam ne borom xam-xam yi dugal nañ ko ci diine yi ba mu mel ni dëgg te du dëgg su ko defee lii benn xaw seen la woon waaye bokk woon ci darsu bi kon amin tur yàlla la wala haza ci li la sukkandiku ibnu abbas nee na amin mm, nee na du tur yàlla ak xataadatu waa saara yëg la xawlu waxam foqul waxal inna amin na amin lay sa nekkut minal fatiha di bok ci fatiha wala min alquran di bok ci alquran mu ne bam la waxal amin lolou mo lay wal na amin bokkul ci fatiha bokkul ci alquran woo moom kazalik nek non la idmaan si dëppoo borom xam-xam ni ne amin tampon bi yàlla la buur su waxe ba pare dana tampo tampo bi deug la bokul ci lettre lettre ba le waye na mënoo ko génn ci lettre ba moy motali lettre ba amin non la mel tampo bi yàlla la kenn mënu ko génn ci alquran waye na bokul ci wax ja dégg wa mahalu nat bi taamin yi boobu sopp amin mooy in kunta boo nekkee wax daka yow dong sabaawun moo xam kaana nekk na asalaatu julliga ga sirriyatan di kajug yalu aw jahriyatan wala këjug biral aw xalfal imaam yi wala ci gannaaw imaam fi sirriyati ci këjug yalu aw jahriyati wala këjug biral kenn lañu sopp amin ñettay julli yow kese mm, imaam wala boog ñu lay jiite bu dee yow kese la moo xam nànk ngay julli nànk ngay wax wala ci kaw ngay wax dangay wax amin bu dee ci gannaaw imaam ngay nekk imaam bi bu wax nànk wax wala daalin ca kaw da nga wax amin imaam bi buy wax ci kaw nga dégg wala daal lii na nga wax amin moo tax mu ne aw xalfa wala mu nekk ci imam imaam ci siriyati moo xam imaam nank lay jàng awil jahriyati wala imaam ci kaw lay jàng waaye in samia bu déggee moom maa moom ba xawla imaam yi wax imaam wala daalin yow mu nekk ci gannaaw imaam daal boo déggee wala daalin na nga mën ngaa wax amin boo déggul wala daalin na nga jërul ngay bu istaabu sopp nañ lakk ñeel la an tux fiha nga nëbb ko ay lafza amin baatu amin nga na nga ko nëbbu li annaha ndax moom duaun ñaan la wal afdalu la gën fii ci ñaan al ixfaawu moo di nëbbu amin ñaan la comme que ñaan la nag nga wax ko nànk moo gën nga wax ko ca kaw ndax lañ sopp ci ñaan moo di nëbbu wala yaquluha du ko wax ay lafzatu amin baatu amin alimaam imaam fii maa jaxara ci lam biral fii ci moom wa yaquluha dana ko wax fii ma asara ci lam yalu fii ci moom alaa jihati sunna ye ci wàlla sunna imaam buy wax ca kaw du wax amin buy wax nànk nag sunna la ci moom mu wax amin wala maa kaana ba mu nekkee yu ta waxamu ñuy defe defe mooy njott gu lottu kenn du ci sukkandiku nag ci mbiram diine min qawli ci waxam wala yaquluha du ko wax al imaam imaam ilax ba mu jeex ba mu waxee imaam du wax amin buy biral dafay mel ni dañ ciy déggee al ittifaq dëppoo ala adami qawliya ci ñàkk wax amin dafay mel ni borom xam-xam yëpp dëppoo ne imaam buy wax ci kaw du wax amin mu dabaatal loolu ndax maandu xaala ci la wax ne wa fi qawli nekk na ci wax imaam ay al imaamu iyaaha amin fil jaari ci biral ixtilaafun wutee kat mu ne la waaye nag imaam buy biral wutee nañ ci dana wax amin wala du ko wax wala muxtamadu lañ ci sukkandikoo nag al mooy wax ji njëkk ja mooy imaam wax ci kaw du wax amin loolu mooy lañ sukkandikoo qaala wana xalilun xalil wa taaminu fasdin ak aminu kenn kuy julli mu laqan nu mën a demee wa imaamin ak imaam bi sirrin ci yalu wa mamumin ak mamuum bi sirrin ci yalu aw jahrin wala biral in samiu nam dégg na imaam alal azhari wala boog in samiu nam dégg na wala daari na ga azhari si wax di gën a feeñ hmm. way saarum ak seen yalu bi ci amin ga xalil nee kenn kuy julli num mana deme dana wax amin mo xam ci kaw lay jang wala nank lay jang lu lay mutlaqan ga imam dana wax amin bi sirin bu re nank lay jang mamum dana wax amin bu re imam ga nank lay jang wala ci kaw lay jang ci sàttaab mu deg wala dalina ga lolou moy li gëna a amin gi sopp na ñom ñep ñu yelu ko lolou moy way saaru mak seen ak yelu bi ci amin wa damiru damir ga fi samiahu ci deg na ko lil jahri دلنا تبرلغ داخل الفاتحة تمجيك فاتحة ومم لفظ ولا الضالين موي بات ولا الدالين لو أنا إن سمعه دمير قوك دفاك ديالو تي بديك ولا الدالين دفاك ديالو تي ولا الدالين ما مم دال بديك ولا الدالين دنوا آمين بديك ولا الدالين دوا آمين ويلم يسمع ديري ديكوت ما قبلها لنجك ولا الضالين يو ديكنا ولا الضالين وايد لنجك ولا الضالين ديكوكو دنوا آمين laa in lam yasma waaye waxuma bu déggut axiraha mu jëg fatiha wa in samia dila dégg na maa xabloo ko jiitu imaam li muy jàng yëpp dégg nga ko waaye ba mu demee ba ci wala daalina déggoo doo wax amin kon amin kuy dégg wala daalina moo koy wax mu ne su baada qiraati ummil quraan gannaaw bu mu jàngee fatiha taqaraw dana jàng baadaha gannaaw ga ala jihati sunni ci anam sunna mooy jàng ga sunna la cheyan dara min alquran yi ci alquran walaw aayatan di la aaya la xasiratan bu gàtt maanaam soo jàngee fatiha ba pare na nga jàng ab saar moom la woon su ma taqaloo toog mu jàng suratan saar ca yax ba min tawaalil mufassal saar yu guddi yi dégg nga mm, saar yu guddi yi danañ ko wax léegi mm, moom lay saraane dégg nga mm, ne na jàng dara ci alquran wala ayatan di la aaya la xasiratan bu gàtt ka zawaata afnaan xam nga loolu benn aaya la waaye gàtt na lool boo jàngee faatee ba pare boo xoolee boolina nga wax amin bu dee euh, nga boo waxee amin ba pare na ci teg boo si tegee zawaata afnaan baax na <laughs> ñaari baat la aw mudhaamataan mudhaamataan xam nga benn baal waaye aaya la mën ngaa jàng wala daalina amin nga ne mudhaamataan rukon waxuma nag nga tayal rek topp mudahamataan di ko jullee mudahamataan mudahamataan bu yàggee mudahamataan jéppi la far ndax day xam ne dañ koy jëfandikoo ngir te moom dafa ñëwoon ngir sawar ci bëgg yàlla ci jokkoog yàlla ci jege yàlla hmm? kon moytul di loo xam ne dafay tax alquran jéppi la mooy jàpp saar yu yi rek di ko jullee ngir teg tayal te alquran dafa ñëwoon ngir sawar loola ci yàlla yow nga ñëw nag di ko jëfandikoo ci contraire la ko taxoon a jug loolu mën naa tax mu jéppi la waaye boo ko jàngee nag mm, te fekk jubloo ci tayal baax na dégg nga boo ci jubloo tayal it yàqul julli ga waaye maa ngi ragal mu sànk la kon boo jàngee faate ba pare na nga ci teg dara ci alquran bi aaya bu gàtt la mudhamataan wala zawaata afnaan aw baada aayatin wala benn aaya la tawilatin bu gudd bu dee matul aaya waaye gudd na baax na waaye lu matul aaya gàtt kooku baaxut ka aaya ci day ni ni ka aaya bor yaa ayyuhal lazina aamanu izaa tadayantum bi daynin xam nga dafa gudd lool yow boo jàngee ba aaya ba xaaj nga rukkoon kooku baax na ndax da nga wax luñ xam kon da nga jàng aaya faate ak aaya wala faate ak genn wala aaya bu gudd aaya bu gudd nga jàng genn wàll nga baax na comme aayatu dayni yaa ayyuhal lazina bu gudd la kooku boo jàngee genn walla nga baax na hmm? waaye saar nag du farat du du du du du mooy sunna sa boo jàngee faatee daal teg si dara ci alxuraan ñu ne aaya bu gàtt la wala génn wala aaya wala afdalu li nag suuratun mooy saar kaamilatun bu mat li nag mooy nga jàng faatee teg si saar bu mat sëkk moo gën waaye saar dafa gën rek dañ koo sopp waaye nag du du mm, nag mooy sunna sa boo jàngee dara ci daal mm, lu xaw a gudd wala ab aaya ji la aaya bi gàtt baax na wootu woyu sopp nañ an takku na mu nekk moom la ngay jàng moom si julli suba la nekk nag moo tax min tiwaalil mu fasali si saar guddi yu bëri fasala yaa nga julli juróom yi suba la suba ci lañ nekk wax naa la ngay kabar kabar xamaal jàng ci kaw la ci aj wax na ko soo paree nga jàng saar dégg nga wala mm, ab aaya rek nga jàng dara ci alxuraan ci kaw nga koy jàng waaye nag julli suba dañoo bëgg nga jàng ci saar guddi yi tusubaar dañoo bëgg nga jàng saar guddi yi waaye tusubaar na gën a gudd euh, suba na gën a gudd tusubaar suba moo war a gën a gudd tusubaar waaye ñoom ñëpp dañoo bëgg nga jàng ci saar yu guddi yi taksaan na nga jàng ci saar yu gàtt yi timis na nga jàng ci saar yu gàtt yi gaye na nga jàng ci saar yu digg doom yi noonu la moo tax comme que si julli suba nekk mu ne sopp nañ nga jàng min tiwaalil mu fasari saar yu gudd yu bëri fasara yi luy loolu mooy gudd nañ waaye bisimilahi rahmaani rahim daf cee bëri da ngay jàng saar léegi tey mu jeex ñu waxaat bisimilahi rahmaani rahim nga jeexalaat saar waxaat bisimilahi rahmaani rahim amma boo xoolee kaamil ba ca kaw boo commencé saar balaa ngaa yegg ci bisimilahi rahmaani rahim day yàgg nga saar dafa gudd lool yii nag xaw naa gudd waaye diggante saar yi dafa bëri maanaam saar yi yu ñëw dafa bëri bisimilah rahmaan rahim bu bëri bisimilah rahmaan rahim moo teqale saari nag moo tax ñu tudd fasal yu gudd yi nga xam ne nii dañoo bëri bisimilah rahmaan rahim yu leen séparé ci ngay jàng ci julli suba nga ne ko tiwaalul mu fasal yu gudd yi fan la mu ne allazi mooy bi nga xam ne awaluhu bu ci njëkk alxujuraat ala maa rajahu ci la lëngal na ko alwujhuur yi wa muntahaaw doytal waaye maanaam fa mu yem mooy annaaziaat saari guddi yi muy commencé xujuraat ناجع الديخ سس يعبس سورة الحجرات مو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مواتي سي يغن يا أبو بكر وعمر يا وانا جمت كان صحابي لنجرين لنجي مو دي نان waaye ñun dañuy juum di fettirlu di di lay juum juumti ga di ko defar xam nga nit ku mat ku dul juum amut njuumte du mooy alak nit waaye sax ci njuumte fettirlu mooy alak nit waaye ku juum tuub mucc ndax attaayibu min azanbi kaman la zanba la kuy tuub ci bàkkaar moo ko amul bàkkaar ñu kon bàkkaar du alake waaye sax ci bàkkaar fettirlu roy alake saxaaba yi li ñuy gënee du dara lu mooy buñ juumaan dañ daan tuub dellu ci yàlla yàlla baal leen bàkkaar bi ñun nag dañuy juum ba pare di xool ni ñu rafetalee njuumte ga mm, nangam ak nangam hmm? loolay juum dëgg nag kon saar yu guddi yi muy xujaraat yaayu li si am na googu ma wax ban naa jeex diggante boobu julli suba foo si jàng baax na mais ci kaw ngay jiite mbooloo mu nangu nga guddal waaye boo xamul mbooloo mi ngay jiite gàttalal loolu dana ko wax ci kanam julli yëpp ngay gàttal guddal gii mooy boo julli yow kese wala ngay julli mbooloo moo xam ne ñëpp a sawar guddal ga su boobaa mën ngaa guddal ndax teggin la nag nga nekk ak yàlla ne ko yàkkamtiwuma lu gën a rafet loolu nekk yàlla wan ko ne yàkkamtiwuma feeg maa ngi teew ak yow maa ngi kontaan julli gi su ma sañoon du jeex moo gën teew ak yàlla te yaa ngi ne ngéej romb ko fa dem doxi say soxla yi kon yow daf mel soxla àddina yi moo la gënal sa borom xam nga loolu xaal bu baax la waaye lu muy baax baax baax baax baax baax bu dee dana dawloo ni ñu julli mu ñaaw moo tax mbaax du fu ne nga koy utiliser doo ko utiliser si majaalu daawati bu xoote booy xoote jëmee ci yàlla da ngay xool li lii tax nit ñi ñeme li tax nit ñi di bëgg li tax nit ñi di mm, ñëw ci lislaam nga wan leen ko bu ñu bëggee dana leen buñ demee ba xegg dana leen jaral coono ngir euh, bànneex bañ ca gis ak xam gi ñu xam valeur bi waaye mbo nit ku xamagul lii lan mooy valeur bi xamagul lan mooy njëriñ bi dugg bees yow nga topp sa xaal di bànneexu ci yàlla ba dawaloo ko ci yàlla yow bu yàggee yàlla dàq la ci péem ba ndax xooteetoo jëm ci yàlla mooy da ngay fekk li ñu jëm ci yàlla loolu la bàyyi waxoon ne ñu bari ci wootikat yi dañuy fekk taalibe yi su boobaa ñoom ñu ngi lewaatu yàlla guerre julli di guddal benn waaye def na ko benn saxaaba ne yonentu man du ma julleeti ci gannaaw diw lu tax parce que day guddal yonentu mer ne innakumul munafiruuna innakumul munafiruuna yéen yéenay dawloo nit ñi lislaam yéenay dawloo nit ñi lislaam dañoo topp seen xaal ak seen bànneex ak seen doyloo yàlla ba guddal julli ga lu baax nga noonu waaye bu doon ñoom kese waaye bañ ca dawloo nit rek yonentu dafa moo tax mën ngaa waaye bu dee dafay dawloo nit ñi lislaam ak lum rafet rafet rafet rafet rafet yonentu mere na la yàlla mere na la moo tax kat dafa war a xereñ kon julli gàttal ko bu dee xamoo ñooy jiite bu dee nag jiite nga mbooloo mu sawar bëgg nga guddal guddal leen yaa xabaza ndaw lu baax guddal gi nag mooy xujuraat ba naziaat maanaam ba sës ci xabasa yooyu mooy saari guddi saari diggu dóomi mooy wa min abasa commencé abasa ila duha ba wa duha wasatul mooy saa yu diggu dóom yi booy commencé abasa ba sës si waddaa wadduha bokkul si yu diggu dóom yi yu gàtt yi la bokk naasiati ci yu guddi yi la bokk moo commencé yu diggu ba sës si wadduha yooyu mooy kon buñ la boo julli gaye diggante bi ngay jàng bu dee ñi ngay ñi ngay jiite bëgg nañ guddal gi wa min ad-duha commencé ci duha ila axiril quraan ba ci mujj quraan xisaarun mooy gàtt yi wa duha naas yooyu mooy saar yu gàtt yi moom nañ bëgg nga julli ci takkusaan wala timis ak boo jiite ñoo xamut ndax sawar nañ guddal gëm déet foo li ma xam nañ mi ma zakar naa ci liñ tudd an na sunnata ne sunn ba laa tata waqafu du matee ala kamaali suurati ci matak saar ba waxuñ la ne boo jàngee faatee balaa nga andi sunna rek foo nga jàng saaru mat déedéet boo jàngee dara ci alquran baax na bi la aaya bu gàtt la wala genn wala aaya bu xaw a gudd is ngir kamaaluha mat ak saar ba mustahabun dañ koo sopp rek saaru mat moom dañ koo sopp rek waaye nag du mooy sunna sa wayu kuréw sib nañ al ixtisaaru xem ala baadiha ci lenn saar jàng lenn saar rek dañ koo sib waaw bëgg saar wa mat moo gën boo jàngee dara sa saar sib nañ ko waaye baax na waa saara yëgle ne xawlu waxam su ma taqaraw topp nga jàng dafay wane ne an saar mu aqalatun moo mujj ala umil quraan ci fatiha dangaa war a jàng fatiha door see teg saar saar waa mujj xii la waxeef na ne alaa jihatil wujubi ci anam ak war ñu ne loolu dafa war da jàng fatiha teg ca saar loolu mooy lu war waxee am na ñu ne warul kat ndax du farata sax bay war boo ko bàyyi du am bakkaar kon indoo moom sartun sart rek la fi xusuuli sunniya ci am ak sunna ba ñu ne loolu sampare rek pour sunna ba mat maanaam boo jàngee fatiha andi sar ci ngay andi sunnay euh, sar wo xam sar sunna rek si sunna ci mat deng ay bu da nga jang sar door a fatiha ngi ku jang fatiha rek sa julli gi amu sar kon andi wo sunna si faraw qara'aha bu jangon sar wa qablal fatiha njëkk fatiha ah ba mu sar wa bu da nga jang sar jang fatiha bo fatiha ba pare da ngay mu sar wa mom mu ne nak da ngay sujjóot ba'da salaam boo maamuwaatee saar wa moom rek laa gis moo andi fii ngay gisee ku jàng alquran di sujjóot ba'da salaam yaa ngi déggam jàng alquran sujjóot ba'da salaam fu mu amee borom Fawaakih ko wax ne ne boo jàngee Fatiha boo jàngee saar teg ci Fatiha da ngay baamuwaat saar wa sujjóot ba'da salaam ilaa yarkan lu muy murkoon waaye daa mu teg yéde yi ñaari loxom ala rukubate yi ci ñaari bëtu omam yi fag isqaatiha mu ngi mel ni kuratal mm, dégg nga saar kon fa tafuutu saar wa dana raw wees juru dana sujjóot laa ñeel ko qabla salaam yi qabla salaam bu fekkee nag da ngaa jàng teg ci faatiha daal di rukon boo xasee rukon rek raw na da continuer su julli boo paree nga sujjóot qabla salaam boo déppaatee nag jàng saar dégg nga su boobaa da ngay continuer su julli nga sujjóot ba'da salaam ndax baamu nga saar wa julli gi nag wutee ñu ne yàqu na ndax da ngaa jugee sunna di defaree dinaa jógee ci farat defare sunna ñu ne yàquwul yaakaar naa xam nga nu wax wa sa ahada bu baa muwaatee saa daal fay noonu nag moom yes julu dana si jóot baada salaami gannaaw bu mu sëlmalee nee na boo baa muwaatee saar da nga si jóot baada salaam bi xilaafi maalaw shakka wuteeg bu sikkoon nag baada xiraati surati gannaaw bu mu jàngee saar xal xaraa manax jàng na alfatiha te fatiha am laa war a déet yow daal jàng nga saar ba pare di sik sàkka jàng nga faatiha wala déet da ngay baamuwaat faatiha gi ba pare baamuwaat saar fa qaraa mu baamuwaat alfaatiha faatiha wa aada mu baamuwaat asruta saar fay noo naka moom laa sujjóot dee sujjóot ale yi di ko di ko di ko war maanaam bu dee def doon sik sàkka jàng na jàng na saar ba pare mu sik sàkka jàng na faatiha am déet su boobaa bu baamuwaatee faatiha gi dafay baamuwaat saar wa te du sujjóot dara dégg bu fekkee nag moom moo tey jàng euh, fatiha jàng saar teg ci fatiha dafay baamuwaat saar wa bu paree mu sujjóot baada baada salaam kon ñaar yooyu bokkul dégg maanaam dafa jàng saar teg ci fatiha avant muy rukon mu fat Mm, mu seetlu ne moom saawi la njëkkee moo xam dafa juum wala moo ko tey dafay baamuwaat saawi bu paree mu sujjóot baada salaam loolu la wax léegi nag bu fekkee ne dafa jàng saar nag ba pare di sikk sàkk jàngoon na faate am déet kooku dafay baamuwaat faate gi baamuwaat saar bi waaye nee na du sujjóot dara donc comme comme nañ la wax ne ñoom bàyyi am tuuti mm, bàyyi jàng saar daal daf ko ci alxuraan la yokk du bokk ci alxuraan du waral sujjóot moom nag andi na fi nag ku jàng sax di sujjóot jàppal jàpp ko bu baax wa fay ma dégg na min la ci waxam suratan saar ne na nga jàng saar andoo moom laa xaw du jàng soo ne ñaari saar fi ci benn rakk loolu dañ ci déggee ñaari saar ci benn rakk loolu duñ ko nangu dégg nga woofu moom kazaalika comme noonu la saqil fas yi caax kenn ku julli wa imaam ak imaam ñaari saar nag ci benn rakk Hmm?